asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax macha allah eh, di jël nuyoo ak ziyaara yëpp tekk suñu loxo sang bu tedd di Mawlaaya Cheikh Seydil Hadji Mouhamed El Cheikh di ñaan mu nangul ñu suñu ziyaara ci ñu nekk taalibe suñu teggin ak suñu tarbiya ci barke Mawlaaya ya Cheikh Ahmad ibnu Mouhamed At-Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñun la waa Nuuril Mutalsam kit xale yi tey ñoo ñoo représenté fii waa Nouril Moutalsam Kids animation fa tabaarakallaahu xanaa rek ñu ñëwoon rek doon interviewé quelque ci xale yi li nga xam ne moom la jot a jàngat ci jamono bi ñu débuté gàmmu gi ba léegi te commencé woon ko ci guddi Mawlaay Cheikh Ahmada Tijaani ba tey jii ci nga xam ne ñu ngi préparé wasifa tisbaar bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Eh, noo tudd yow. foo dëkk. daaratul imaam mu ndoom. macha allah Mouhamed Gueye yow gàmm gi ak léegi nii lan nga jàngal si gàmm gi. jàngal nañ ma jàngal ak tamit ay kii nii farata allah lan nga mu ñu indil comme si si way si nga jox te jàng si gàmmu gi. mën naa la wayal kii nii li wax leer gi bari na leer gi ñëw na. leer gi bari na leer gi ñëw na leer gi mooy Medina Cheikh leer gi bari na leer gi ñëw na leer gi mooy Medina Cheikh fëggal Medina si set jil la nga dugg ñaan sa ajo set nga wecc leer nga naññ si barke Medina Cheikh. ah macha allah macha allah macha allah kooku. daayratul iman bu mbëndoom la bàyyeeko xanaa ñu jàll ci deuxième euh, candidate bi macha allah salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si noo tudd. Aïssa Ndiaye. Aïssa Ndiaye Aïssa Ndiaye foo jógee ban daayra iman. Rufisque. daayratul iman bu Rufisque macha allah Aïssa yow lan nga jàngat ci gàmm gi ba nga ñëwee ba léegi fii si gàmm gi. Allahu nuuru laa ilaaha illallah. wax si kaw nan la nga jàngat si gàmm gi ba nga léegi ba nga ñëwee ba léegi. allahu nuuru laa ilaaha illallah. mën ngeen ko wayal. bismillah. allahu nuuru laa ilaaha illallah allah allahu nuuru laa ilaaha illallah alif allahu nuuru laa ilaaha illallah allah. ah macha allah macha allah xaa ñu tàcc ko rek macha allah macha allah yàlla na sang bi barkeel lépp tabarkàlla xaa ñu jàll ci keneen ki nga xam ni moo war a tamit. Eh, wax ci li nga xam ne mooy gis-gisam ci gàmm gi macha allah. Cheikh Maguette ñu ngi lay ziar bu baax macha allah ban daayatul imaan. Ah, maa ngi delloo ziar baax maa ngi bokk daayatul imaan bu lan nga gis ci gàmm gàmm gi jamono ji gàmm gi commencé ba léegi. ah ànd ak macha allah ah sang bi daal ku ko am daal doo perte lan moo lan nga ban jàngat nga am ci tante bi nga xam ne mooy Nuurul Mujassam Kids durant ubbite gàmm gi ba léegi fii. ah ba mu fi ñëwee ba tey maa ngi chanté chanté way macha allah. ah macha allah lan nga ñu mën a wayal rek barkeelu ñu ko si guddi bés bi tey. yaa imaamal almadiyu يا ابن شيخ تجاني يا سراج الأولياء yaa nu xamal yàlla ak yoneen te xamal nu Seexu Tijaani di feeñ na ci zaman bi Mahdi leeral na sunu ruuy yaa imaamal almadiyu yaay borom kaala gu gi di borom yaatu xaqiqa bi di borom kurusu xarafaat yaa imaamal almadiyu marhaban yaa seydi Muhammad el Cheikh marhaban yaa seydi Muhammad el Cheikh. ah macha allah macha allah. ah loolu de moom lu daw yaram la macha allah macha allah yal na yàlla barkeel lépp macha allah xale yi dafa mel ni li ñuy a jàngat si gàmm gi maanaam lu am solo la waaw kenn ñëwu ci rek toog toog noonu rek bàyyi sa bopp macha allah waaye kenn ku ci nekk am nga loo ci jàngat waaye comme ni ko sangi bu waxee rek ni gàmm gi amul ko ndaw waaw kenn ndaw fi koy xool yaakaar ni moo gën a ndaw fekkate ma nga la làmboog loo xam ne kenn xamul lan la. waaw pour wax la kenn amul tuuti si xadara bi macha allah xanaa yàlla na yàlla fayal ñu ñëpp macha allah barkel xale yi yàlla def leen ñuy magum xaqiqa ci barke Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh xanaa ñu àndandoo rek incha allah ñu bégal soppay allah nurullahi la ilaha illa allah